ni ngeen koy waxee journée excellence te jàpp naa ne journée la boo xam ne xëy na tey lañ ko fésal mais yàgg nañ ko def mais euh, loolu moo tax tey ñu daje fi vraiment c'est pour récompenser élèves yi nga xam ne wax dëgg neex yàlla ñu ngi góorgóorlu récompenser aussi jàngalekat yi nga xam ne vraiment ñu ngi gën a def effort si si école yi vraiment loolu moo taxoon tey ñu daje fi. waw xam nga jàngale dafa bari ay étape kenn ku nekk dafa am étape boo si am bu njëkk bi mooy. Euh, maître bi peut-être am na temps bu muy passé ak élève bi mais li ëpp si temps yi euh, dañ koy def aussi ak euh, yaay yi ak pap yi te jàpp naa ne bu njëkk ba comme ni ma ko waxee euh, jàngalekat yi amoon nañu sañ-sañu xale bi def lu ñu jàpp ne waru ko def ñu jël yar jubbanti ko su papam ñëwee daf koy dafay dafay encouragé maître jàngalekat bi ne ko vraiment bu defateelu lu ni mel na nga ko duma mais tey yaakaar nañ ne amatul benn jàngalekat bu am fitu jël yar waxuma la sax nga waaye xas bu métti sax boo ko defee li la siy fekk mooy ñu andil la convocation kon nag loolu nga xam ne jàngalekat yi dañ ko doon def su fekkee ne léegi jàngalekat yi amatuñ sañ-sañ pour def ko su ko parents yi deful mais xale bi dafay sànku parce que dafay yaakaar ne lu mu def rek la kon loolu nga xam ne parents yi xaj nañ xañ nañ ko tey jàngalekat yi il faut ñoom parent yi ñu jël ko en charge di toppatoo xale yi di leen jàngal di leen encadrer bañ a jàpp ne rek xale bi liy njëriñam si kër gi mooy di ko yónni muy yenu di tuuri ay ndox wala muy dem ay yónninte am xamee da nga ko war toog di waxtaan ak moom waxuñu aussi nga di ko dóor wala nga di ko saaga wala nga di ko xas ba mu ragal la ba nga xam ne bu la gisee rek fit bi day dem mais man ngay toog ak moom di waxtaan ak moom pour vraiment fexe ba xelam dellu si mu nekk koo xam ne ëllëg ak si biir bu tasee ak ay nawleem dinañ xam ne kii ay parents am defar nañ ko xale bi aussi li ko war mooy mu bàyyi xel ne coono yi parents yi daj si ñoom di jënd ay fourniture di jënd ay tenue di fexe ba di leen mettre dans les bonnes conditions mooy ñoom it ñu góorgóorlu jàng pour bu ëllëgee ñu mën a li dox seen diggante ak yi dox seen diggante ak seen wayjur yi ñu man ko remplir lool mo mo doon appel bi quoi. jëkët bu reuy la ci am parce que bo jëlé vraiment lool dama ci euh, profiter di euh, félicité bu baax baax commission éducation mais ni gëreum vraiment di félicité le conseil municipal le bureau municipal le personnel de la mairie parce que nga xamné ku si nekk am na wàll am mais so jëlé peut-être li ñu programmé won pour def ko xëy na tolluwul won noonu mais biñu ñu waxtaan gis né vraiment japp nañ né école bu nek waru ñu la république bi dañu wara

loolu mooy yéene bureau municipal bi aussi.